dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaaru yu wér abu wóor leen ngir dara bañ leen raw jaajëfal leen mbokk internet info 221 ñu daal di suub rek ci xibaar yi jëm ci kàddu yi nga xamante ni duppe na ci kii di Atépa moom nee na président Macky Sall mësul am naka coup de fil dem diggante amul nag waxtaan bu am diggante moom ak Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ci Atepa mi nga xamante ni moo yëkkati yile kàddu président bu club bu investisseur bu Sénégal waaye tamit yombal lool dialogue bi dox diggante président Macky Sall ak kii di euh, ki nga xamante ne rek moo di Ousmane Sonko moom Atepa wéet na ba mu set wicc ci xibaar yi doon wër nag ci internet yeeg rajo yeeg télé jàpp rek ne waxtaan dafa daal di am diggante président la République Macky Sall ak ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko Atepa wéet dina ko nee na mësul am wax téléphone diggante président Macky Sall ak ki nga xamante ne rek moo di Ousmane Sonko loolee du dëgg Sonko sax ak Macky Sall euh, jot nañu waxtaan jaarale ko nag ci par téléphone déclaré woon nañ ko nag ci benn goxu plateau tribune euh, yéenekaay yi seen TV sax la ñu yëkkate yooyee kaddu ki nga xamante ne mooy Atepa weddi na ko ba mu set wecc nag kon nag jàpp leen mbokk ni lu ñu di doon xaar rek ne jot na am dootatul am waxtaan amul si téléphone diggante président Macky Sall ak ki nga xamante ne rek moo di nag euh, Ousmane Sonko ñu nekk juróom ñoom dañoo tàmbali woon ab xiifal jot nañ leen nag évacué ci urgence yu hôpital ginnaaw seen xeex-xeex boobee nga xam ne ñu ngi ko doon amal xiifal ngir ñu mun leen génne ci kaso bi comme ni ñu defee woon ñu nekk fii ci Ndakaaru ñaari fan yoo xamante ne mouvement d'humeur mi ngi am foofee ca prison bu nekk ca Ziguinchor juróom ñaari grévistes yi jot nañ leen évacué urgence ñoom nag ñu ngi ci situation bu critique jamono ji buñ sukkandikoo yoo xamante ne dañoo bàññee duñu laata rek ñii di waa FRAPP nag di interpeller nguurum Sénégal ci situation bi nga xamante ni détenu yu nekkee ci prison bu Ziguinchor ñu ngi koy jànkonteel ab fàttali sax nag détenu yooyu dañuy ñaawlu seen détention yu yàgg yi ñu téye waaye tamit di réclamer nguurum Sénégal mu àtte leen wala sax nag mu bàyyi leen comme ni mu ko defee euh, ci li am ca Rebeuss ak la nga xamante ne mooy yeneen prison yi nekk fii ci euh, biir Ndakaaru